jaam ña te bu fàttalikoo ñi nga xam ne dañ doon bañ suñu maam yi bu ñu leen daan takkal bracelet électronique am na ñoo xam ne dañ daan xaru may xamal ne Macky dëkk bii doon ko ci ndey doon ko ci baay doon ko ci maam ñun suñu bopp dañoo xeex pour libérer Sénégal donc su ñëwaatee duñu indil ay bracelet électronique duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg li ñuy exiger mooy la libération sans condition et totale de El Malick ak euh, euh, a heure bi ba léegi pour am indépendance pour am liberté kon nag du ñu nangu ñu ñëw di ko delloowaat ci n'est-ce pas au temps de Mathusalem nga xam ne liberté amatu fi kenn mënut a lekk ba suur kenn mënut a naan ba man su ngeen gisee ma indi sama doom ji tey c'est pour lui construire un meilleur avenir parce que xam naa ne son avenir est en danger su ma bàyyee nii xeexuma man mi yaayam moom li mu bëgg du ko mën a am bu ëllëgee moo tax tey ma indi ko ñu ànd mu xam ne tey jii l'heure est plus que grave dans ñu ñëw représenter n'est-ce pas la commune de Mboula ñëwaale aussi département de Kër Massar je vous remercie. asalaamaaleykum.